jéem duñu benn adresse bi du fenn fu dul fii ci tapis rouge egg leen ba gis bi les promo chambre à coucher royal king size ci 499 000 ko jaayee 650 000 di armoire six battant ak double lit bu waa kër gi yëpp mën a tëdd ak deux de chevet plus coiffeuse ñu transporter la ko monter la ko doo ci fay dara bu dee Dakar chambre à coucher bu ngeen fi jënd tapis rouge may ay cadeau ay coussin ay descente de lit ay rideau ku mën na def ku mënul neel fes tapis rouge a fi des indi ay meubles yu am qualité te bees ci promotion tabaski bi tapis rouge dina la jaay salon 7 places plus table basse ci 599 000 may la ay cadeau te ci wàccaayu tabaski bi tapis rouge day ubbi dimanche téléphone 33 842 63 42 ou 77 491 89 89. Justement, yo, on a le choix. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Je préfère un ponkal qui sait tout faire. Yii, mhm. borom baax laa lay tegal nii de. En plus, il n'y a qu'avec lui que je me sens en sécurité, en confort et en confiance. Et ça, depuis dix ans. Da ngay seet lii rek. ay ngandim wàññi yu yéeme. wàññi nañ ba quatre vingt pour cent. si frais d'envoi ak retrait yi. su weesoo cent mille francs nag. un pour cent dong la. mooy yow fayum facture yi nag. Ah. un pour cent fépp. Ah. un pour cent partout. Hmm. orange money. Ah. moom rek la. bees yu bees. kalpe bu fees. léegi xoolatuma keneen. waa mooy orange money. kooku weesu na kalpe. <laughs> <laughs> Orange Money bees yu bees wàññi yu yéeme ci kalpe bu fees way di gunge bés bu ne ak service yu xarañ noppale te ànd ak confort ak sécurité bu mat sëkk. Rendez-vous sur l'application Orange Money. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. asalaamaaleykum ah, salaamaaleykum ah, mbokk yi ñëw di leen nuyuwaat ah, ci bergerie bi ñu toog ñu am fee invité nag yoo xamante ne ni tey ñu toog fii bëgg leen a xamal li nga xam ne moo jëm ci wàllu jur gi bu ñu toogee ki nga xamante ne nii moo ne sama ndijoor muy Babacar sama càmmañ Latir Cissé laa ci féeteel ñu doon ay ndaanaan yoo xamante ne ni yaakaar naa bu ñu waxee ci jur wax nañ ci lu ñu xam. bu la laajee Babacar sa toogaay bii nga xamante ne moom nga toog fii jàkkaarloog télévision bii nga xamante ne mooy TFM di waxtaan ak doomu aadama yi wax leen li nga xam ne mooy mooy jëm ci jur Babacar maa ngi lay nuyu. Mamran maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur TFM yëpp waaw li waral jotaay bi. mooy exposition bi bergerie Al Khoureychine def fii ci foiru tabaski 2021 mhm. donc occasion la mhm. pour ñu présenter li ñuy liggéey ci wàllu production mhm. euh, de race de race à viande donc euh, dañu am fii ñaari xeetu xar yoo xamante ne dañ leen importé euh, muy dorpeur bu jóge si Afrique du Sud ak euh, Île-de-France yi nga xamante ne France la jógee. Mhm. donc ay xar la yoo xamante ne. Mhm. Euh, seen croissance dafa gaaw. Mhm. ba pare ñu nekk ay races bouchères. yoo xamante ne en gain de temps bu gàtt. mun nañu am ay poids yu jéggi dayoo. waaw loolu dinañ si ñëw Babacar. voilà comme damaa toog Latir. damay jox Latir mu nuyoo. ñu ñëw ci yow parce que loolu nga wax noonu dafa am solo te dinañ ñëw. nga wax nu xeeti xar yi. lan moo leen andi. Latir maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay di nuyu ñëpp di nuyu waa. Euh, bergerie Al aussi. Euh, di nuyu aussi yéen ñi fi toog waa GFM. di nuyu aussi ñëpp daal ñu nekk ci milieu élevage bi. di di nuyu ñëpp daal di kontaan ci ñëpp di kontaan ci yow aussi mi may laaj question yi nga xamante nii ci xar la jëm ndax ñun moom. élevage rek moo ñu ñett ci la ñuy dox donc muy élevage ak xar ak lu koy yokk ak lu koy jëmale kanam. kontaan nan waaw mu ñëwaat ci ki nga xamante ne ni mooy mooy mooy mooy mooy Babacar Babacar fi nga euh, commencé woon sànq. fa lay ñëw ak yow Babacar bu ma lay laaj li ma lay laaj yomb na li tax mu yomb mooy dama fee gis ay xeeti xar yoo xamante ne nii juddoowuñu ci réew mi te bëgg naa ñi nga xam ne ñoo toog seen télévision di seetaan xam xeeti xar yi lan moo leen fi andi ak lan moo waral ngeen yeb ci avion ñu ñëw ndax xar yi juddoonu fi waaw euh, première race bi fi nekk mooy yu weex yi am bopp yu ñuul yi waaw moom la ñuy wax Dorpeur Dorpeur bi Afrique du Sud la jóge benn la boo xam ne dañ ko créé mhm. Euh, pour euh, pour am ci pour am ci ndawal. Uh-huh. parce que xar yoo xamante ne la. Euh, trois mois ba quatre mois. Uh-huh. mun nañu am seen mbote yi mun nañu am trente à trente six kilos. Uh-huh. xar yoo xamante ne seen dundal leen méttiwul. mun nañu dund fu nekk. moom lañu ñu andi pour jëm ko croiser ak suñu race locale yi. pour nga xamante ne ñun suñu xar yi. pour nga pour nga am yenn yenn quantité yi ci viande. da ngay yar xar bi un an et demi ba deux ans pour am ko. ñoom six mois sept mois da nga mm-hmm. ko ci am mm-hmm. donc da ngay gagné en temps mm-hmm. mu nga mën ci am benn revenu boo xamante ne mooy gën a am solo nga ngay jël xar bi di ko yar euh, ci ci yenn diir yi beneen bi mooy ile de France bi Île de France bi aussi ay xar yu jóge France la waaw ñoom aussi dañ leen indi euh, croiser leen ak suñu xaru local yi. pour produire aussi ay races à viande parce que xar yi tamit ay xar yoom dañuy ñoom ñoo gën a ëpp dayoo sax. Mhm. ñoom ay soixante dix à quatre vingt dix kilos mun nañ ko am ci ay trente ci ay cent jours. waaw parce que man loolu laa gis. parce que xar yi mhm. Babacar. ku ma mhm. wax xam ne. doo ñaan kenn graisse moom. waaw ndawal moom di nga ci am lu doy. pourtant pourtant nag bëriwuñu graisse. Hmm. bëriwuñu graisse ñu leen gisee nii suñu xarit sax ñoo leen ëpp graisse parce que dañ leen liggéeyee liggéey boo xamante ne parce que yi ay croisement la dañu dañu dañu croiser ay ay ba génnee ci xeetu xar bi mhm. donc but bi mooy nga am xar boo xamante ne mhm. day euh, ci laps de temps da nga ci am euh, gain de viande bu bu conséquent mhm. te doo ci dépenser lu bëri waaw loolu la ñu andi fii nag pour croiser ko ak euh, suñu laadum yi pour génne ci ay métis mooy ñi nekk fële noonu ah, ñoo nekk nële ñoo nekk nële waaw parce que bu ñuy doog a ñëw fii climat bi du am problème ak ñoom climat bi ñu nekk ah, parce que parce que yaakaar naa xar nekk day sedd bu ñu ñëwee fii yéen nan ngeen nan ngeen leen ak climat bi ñuy fekk fii. waaw ñi njëkk ñëw peut-être ngay mettre si yenn condition yi. yi xam ne dañ leen importer mais si ëpp nag fii ah, ñu fi juddoo juddoo nag du ñu am benn pro du am benn benn problème. voilà il faut nga leen benn con benn condition am na ñoo xam ne sax dañuy dañuy wat seen leen yi. waaw pour que tàngaay bi bañ leen a ah. mais bu ñu juddoo fii ak leen bi amuñu benn problème dañuy dañuy dañuy miin dañuy miin tàngaay bi. kon su ma la laajee euh, foire bi foire bi li ko tax a jug. Mhm. mooy wane yeneen xeeti xar yoo xamante ne ni tey nekkul woon fii ci réew mi andi bi nga leen andi xeeti xar yi. Mhm. foire bi li ko tax a jug loolu lay doon kon. exactement objectif premier bi moom loolu la. Mhm. parce que dañu am bergerie boo xamante ne ay laadum a fa ne mais boo xoolee euh, laadum yooyu ñëw nekkuñu sax ci exposition bi ci ëpp. Mhm. donc xar xar yi la ñuy présenté pour wane rek. ku ci nekk da éleveur laadum bu nekk waroo ci yem ci rek ci produire laadum bi parce que ah. laadum yi ñun suñu laadum yi duñu leen lekk waaw donc euh, li ci des nag xar yu ñu exposé la waaw bu baax sax moom bu dee ndawal ah, ah, rek waaw bu baax a baax ay frigo lay jël waaw macha allah macha allah macha allah euh, di di di rafetlu li nga xamante nii hmm. tey hmm. mooy kaddu gi nga yëkkati ci jur gi hmm. ndax ku xool euh, xar yi xam ne juddoowuñu ci réew mi comme ni ma la ko waxee sànq mhm, mhm. kon boo leen ci defee ay jéego ba ñu ñëw fii mhm. doonul loo xamante ne lu ndaw la ñu lay jaajëfal di la wax ne la mbir mi yaatu na euh, leer na ci suñu nopp dinaa dem ba nga xamante ne bu ma gisatee xar yi dinaa sama xel dina ne ci yow parce que ni nga ma mhm. xam naa ci lu bëree bëree bëri voilà ñu lay jaajëfal Babacar jërëjëf wax ne yàlla na yàlla defal la jàmm ah, merci jërëjëf gërëm ñi nga xamante ne ñoo toog seen télé di ñu seetaan ndax jëlee nañ ci xam-xam yu yaatoo yaatu merci merci Ram jërëjëf noonu xaaral ma jox ki nga xam ne moo nekk sama sama sama sama li latir li may wax ak yow yaakaar naa du du doon loo xamante ne ni luy lam-laamee parce que li nu ki nu defoon fii dégg naa yaa juddul waaw euh, ah, loolu maa ko juddul. mu man nag li ma la ciy laaj mooy. Mhm. Latir man xar moo am 9 mois toll nii ba ma juddoo dama kaa mosul a gis ni nga croisé xar mi ba ba mu toll nii ci 9 loolu ban xam la ak jàng ba xar mi am 9 mois toll nii. waaw no loolu moom euh, élevage la. xëy na élevage xëy nañ xaw nañ cee yàgg tuuti. Mhm. bu loolu weesoo aussi euh, xar bi yaayam dafa nekk xar boo xamante ni. Euh, toll ni moom mhm. yombul woon mhm. yombul sax laay wax ba léegi mhm. parce que bu ñu nee xar bi nga xamante ni moo gën a gudd ci xar yi ñu natt Sénégal yaayam la donc ñu ne xar bi nga xamante nii moo ëpp TP ci Sénégal papaam la donc ay champion ñoo ko jur donc ay champion ba ci ay maam nekk champion donc xar nag bu fekkee ay champion ñoo la jur ah, ñoo xamante ni ku ci ne yow daanaan nga am na loo xamante ni ko mu dëggu ci yow uh-huh. boo juddoo mel ni euh, encore croisement bi jaar yoon uh-huh. waxtaan la ak ñi nga nekkal ak ñi nga xam donc ñoo ñëpp ku ci ne booy jël xalaatam day yaatu parce que du see du ma sax sama xalaat la man kese parce que am na ñoo xam damay waxtaan ñoom bëri ci élevage donc xëy na yëpp bokk na ci réussite bi nga xamante ni tax na xar bi juddu nekk exception parce que du xar boo xamante aussi mm. da koy juddul naan dinaa ko koy juddulu mm. ñaanaat yàlla croisé waat euh, ndax di ko judduluwaat euh, loolu nga wax dëgg la Latir waaye nag xar mi ko ko xool xam ne am na toppatoo bu bu bu bu ne ci moom. Mhm. ku xool xar mi xam ne dañ koo topp parce que ñi ma fi njëkk a euh, dalal bi nu waxee ci xar mi topp nañ ko ci ay maamam ak i maamaati maamaat. Mhm, mhm. kon donc euh, su ma déggee damay xam ne ñii di wax. foraatu ñuy wax. non non non bi dafa am parce que aussi euh, maa ko juddulu waaye mën naa ne moo ko judduloo dama ko jox sama benn grand. grand bu ñaan Badou Diène mu nekk grand bu baax aussi koo xamante ni élevage da cee marqué empreinte am naa dem jëndi champion feneen ñëw indi ko ci dëkk ba dëkk ba ñi fa nekk nekk ci élevage mu di leen jàppale mhm. donc xar bi euh, bokk ba ci xar bi maamam moom moo ko juddulu mën naa ne man maa ko juddulu moom mais ay mhm. maamam moom moo leen juddulu këram donc liggéey la boo xamante ni jàpp naa ni liggéey bu yaatu la boo xamante du man kese ba ci croisement euh, bi amee toppatoo bi dama ak la parce que xar ba am 4 mois day dem ci moom donc bu demee am 9 mois am menstruation yi bu doon yàq na ko wala yàq dara ci toppatoom xëy na mën naa bañ a nii donc nag mu nekk koo xamante ni aussi dañ koy remercier bu baax boobu waa kay Babacar su ma la waxee sa kàddu gu mujj lan la waaw di leen jaajëfal rek Euh, di nuyu aussi suñu mbokk yi ñuy seet si tey waa Mbour yi di leen remercier vraiment si seen teewaay fii di wax éleveurs yëpp mun nañ ñëw visiter euh, stand bi mi ngi fi en face euh, cinéma El Mansour ñu échanger ku mhm. nekk suñu sottante xalaat rek xam ne objectif bi mhm. du rek jaay xarum tabaski mais foire la pour waaw foire la foire la surtout loolu pour il faut la que ñun ñi xam ne foire la parce que fii foire moo nu fi tax a jóg parce que bergerie bi ñu toog nii mu nga xamante nii fi tax a jug mais boo fi ñëwee xam-xam bu yaatu waaw ñuy ooy ñëpp nag ah. euh, Babacar mhm. ñu ngi kontaan jërëjëf la wax ne yàlla na yàlla defal la jàmm jërëjëf waaw yàlla da yaatal say mbir bu yaatoo yaatoo merci beaucoup jërëjëf kontaan bu baax xam naa damay ñëw ci ki nga xam mooy Latir mhm. waaw Latir di la wax ne la ñu ngi lay jaajëfal yow tam di kontaan ci euh, li la laaj ak ni nu tontu tey jële nañ ci xam-xam bu yaatoo yaatu Latir suñu lay wax sa kàddu gu mujj lan la waaw sama kàddu gu mujj moom mooy di leen remercier bu baax a baax a baax Mm-hmm. Euh, di nuyu gérant bi muy Babacar. Mm-hmm. ak euh, pareil aussi que Cheikh Aydara. Mm-hmm. di nuyu aussi Badou di nuyu ñëpp daal. waa Mbour yi aussi di nuyu ñëpp. ñu déplacé wu maam Cheikh. waaw Diagne Modou. di wax ni macha allah. élevage moom nii rek la quoi. waaw élevage moom donc ñun moo ñu ñor moom lañ bëgg. non gis naa loolu gis donc li muy def ci ñun. li koy gis naa loolu moo tax daf ñuy jaral lu nekk. gis naa loolu gis naa loolu dañuy bàyyi yitte yëpp nag xar. donc ku ci nekk rek am nga passion mais ñun suñu passion la suñu bëgg-bëgg la donc di ñaanal yàlla éleveur yëpp aussi ku ci nekk yaa xam li nga bëgg yàlla defal la ko di la ñaanal yow ak ñii ñëpp taxaw kontaan bu baax a baax kontaan naa di la jaajëfal mbokk mu ngi noonu lii fi taxoon a toog muy lu jëm ci wàllu jur yaakaar naa yéen ñi toog di nu seetaan jële fi xam-xam bu yaatoo yaatoo yaatu di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo toogoon di nu seetaan di wax ne ñu ngi gërëm ñi nga xam ne moom la ñoom lañ àndal surtout mooy waa orange di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp